waaw sunu taxawaay fii ci Diass tey dañu ñëw pour wuy si benn appel bu chef de l'État lancé ministre de l'éducation nationale lancé ko muy appel boo xamante ne président de la République dafa jël décision pour école yu ubbi le juin état def ci moyens yu bëri def ci moyens yu bëri waaye moyen du doy mu lancé woon appel ne collectivités locales yi ak bonne volonté yëpp na ci ku nekk dugal loxo ñun nag Diass la ñuy tiitaroo commune u Diass fii la ñu dëkk fii la ñu cosaanoo ba tax na kon mënuñu woon toog di seetaan loolu moo tax tey ñu ñëw fii indi matériel boo xamante ne matériel bi dañ koy teg ci table bi fas ko yéene jox directeur d'école yeeg ak CGE ak APE ñëpp jàpp ci pour que matériel boobu mën leen a jàppale ci reprise bi matériel yooyu bokk na ci 43 maanaam ñeent fukk ñetti thermoflash yi nga xamantene mom moy matériel bi permettre ñu jël température xalé ben ak ak enseignant yi bokk na ci également ñetti junni masque ndax jas joxe nañ fi presque 15000 mille masques kon ñetti junni yoy bu ñewé day yokkuwaat muy 18000 huit masques yokk bokk na ci également 58 dispositifs lave-mains moy matériel yi ànd ak robinet yi nga xamantene ne dina permettre xalé yi mëna rax sen seen loxo yi enseignants yi ak képp kuy fréquenter école yi bokk na ci également ñu def ci ñen fukki carton wu gel yoo xamante ne carton bu ci nekk am na fukki gel ak ñaar muy ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukki gel bokk na ci également juróom fukki carton wu saabu liquide yoo xamante ne carton bu ci nekk am na euh, fukki euh, butéel ak ñaar muy donc ñetti téeméeri butéelu euh, saabu yoo xamante ne saabu liquide la bokk na ci également ñeent fukki carton wu produit bi ñu tuddee azénitol muy lo xamantene day permettre ñu nettoyer té bouteille bu ci nek mën na jël 15 litres té 480 bouteilles yooyu moo nekk ci ñeent fukki carton yoy kon 7200 litres buñ ko diluer mën na permettre ñu gëna nettoyer tout ce qui est surface ak yoy bokku na ci également ñenti paquetu gants yo xamantene ne bolé. ko mu nek ñenti téméri gants loolu nak def nañ ko mu fekk si nak lo xamantene ne jotoon nañ ko fi def té ngeen sédé ko waaye li ci ëpp solo rek loolu yëpp dañ koy jëmale fan ci fanweer ak juróom-ñetti école yi nga xamante ne ñoom la reprise bi gën a concerné ñu fas yéene ko teg ci loxo chef de village yi teg ko ci loxo CGE yi pour que ñoom aussi ñu mën ko jëfandikoo waaye du ñu yem ci loolu danañ leen kon accompagne accompagner ndax accompagnement rek la li mbir mi laaj may gërëm président de la République ci décision bi mu jël di gërëm la corps enseignant ñi nga xamante ne ñoom ku jiit njaago ñoom ñooy njaag xam nga geste barrière yi sax xale yi ñooñu ko gën a xam ndax ci biir kër yi déjà xale yi ñu ngi koy respecté mais li ëpp solo mooy fàttali fàttali maanaam tey jii geste la yoo xamante ne Sénégal tàmmuñu ko woon bu njëkk ba sol mu ñu ko woon bañ a joxe loxo tàmmuñu ko woon mais tey jii commencé nañ ko gën a tàmm comme commencé nañ ko gën a tàmm nag dañ ko war a saxal ba feebar bi jóge fi te saxal boobu nag ci ay fàttali rek lay lay wéeru donc damay lancer appel parents d'élèves yi di wax ne mbir mi du ci école ba rek xale ba ca kër lay jóge bu dem ci kër nañ koy yëpp fàttali ko yu bëri

bon man l'ai pas ko seulement pour les élèves de Diass mais il a agi n'est-ce pas pour le compte de tous les élèves n'est-ce pas du Sénégal parce que aussi am élèves yoo ils sont à Dakar hein, ils font les études ici ils viennent de Thiès ils sont au niveau du lycée donc c'est tous les élèves n'est-ce pas du Sénégal qui sont concernés et vraiment c'est un geste à saluer à apprécier. Du geste bu mu njëkk vous def quoi parce que moom yàgg na si waaw ku ñëpp tifli nga tooy ñëpp ko wax fii moom vraiment nañ koy ñaanal rek ah yàlla le ko. Nous continuons toujours accompagner parce que aussi état bi nous def a beau faire a beau faire mais aussi il faut ñeneen jàpp hein. et ces gens comme ça vraiment nous rek ñoo def affaire quoi vraiment ñu ngi ñaan ils aussi am Nous ñoo xam wuutu ko ci si faire. bi. fu mu problème parce que ce matin comme nous l'avons dit, il y a des gens qui nous le matériel bon non service d'hygiène war parce que aussi ils sont en train de faire le tour de Dias de dans mais je pense que dès demain au plus tard ils vont comme ça de qui pomper classique bon le reste c'est déjà balayé.